abqaytani mu'jizatan lil muntaxa man lam yuwaafiqni laqaa maa taxaa sëñ mag bi ku ànd ak moom jàmm ngay am àdduna te bu alaaxira moom ngay am sëñ Tuubaa nee na yàlla mi leen moom bind leen moom àjjana moom sawara moo dogal moom yàlla ku ma bëgg man ahmadou bamba danan la wammat jëme ajjana yaquudu lil jinaani man ahabba man la lam yuhibbu nii li naari kabba yàlla moom seen xol yi waaye nee na ku ci war a texe sab xol ahmadou bamba laa ciy def xulubu jumlati alladina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu ñoom Saliou Samb nag ak ñu mel ni moom amuñ ci benn responsabilité waxi sëñ Tuubaa la nuy nettali bu bëggutoon nu ko nu nettali ko du ko bind waaw nun ay daanukat lañ d'accord danoo fanatique d'accord waaye daal li nuy nettali moom ku ko weddi Cheikh Ahmadou bàmba nga weddi ndax moom moo ko bind te bu bëgguloon nu nettali ko du ko fi ba sëñ Touba na ñi war a dem àjjana man Ahmadou bàmba la yàlla di jël dugal ci seen xol ku warta dem dooma bëgg li gayrin taha bil muntaqa kulla zi saqa wa yanhu bihi nahwi saidun wazu tuqa haraba kullu man lahu shaqawa ila siwaaya waliya tilaawa eh borom barab bi borom barab bi waay waay njàkkaam sa woon ca Gabon njàkkaam sawoon ca ba ca gaba ko fay njënd yi sëñ Ami Dun Jóob noo def maa ngi ñaan ku fi teew maa ngi ñaan ku wax jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba waaw war na warees na ko wax waxoon naa leen ko fii woon naa leen ku ko wax toppandoo nga yàlla jërëjëfe sëñ Touba ku ko wax toppandoo nga yàlla ku julli ci yonent bi roy nga yàlla def nga lu yàlla def waaye ku wax jërëjëf borom tuuba toppandoo nga yàlla inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima waaye cheikh ahmadou bamba moo ne yàlla yaa ma andi ba ca sa pénc ma sa armée bépp taxaw nga ni ma ahmadou bamba jërëjëf chakartani inda jamii jundika yaa xayra jaarin xat makastu indaka jërëjëf borom tuuba suñ mag bi amul moroom nan bàyyi wanga wangal beeg dendale bi sëñ Touba amul kur ko war a niroo leel ndax niroowul ak kenn bi ñu lalee dënd bii ba fii nu toog genn góor def fi lu toll ni lim fi def masta def lu nit man mosuñ koo teg attan kon léppam kawteef la masta def lu nit man sunu sëriñ nun mësee su koo teg lu nit attan la ko boromam jaralit mësee su la gis ku ko yàlla jaral Seexul Xaddiim amu fi de waaw bu beroo ci jëf yi ba pare nag nga bëgg ñu boole kook sa waay di dendale noo lànk da ngay indi rek ku def lu mel ni li mu def ku weddi ba tax nga bëgg ni maay moroomam na def la mu def mbaa mu wax la mu wax boroomam mbaa mu dox fi mu dox ci réew yi Gabon wa Congo ba dellu si te fekk fi moroomam te sàkk ku mel ni si Ibra Faati wa Ahmadou Ndumbe ak lampum boroomam Cheikh Ibra Fall te sàkk ku mel ni Seex Abdourahmane Lo ku judd ci Mbàkke moo la xamal boromam te sàkk ku làq jagleeg Sidil Muxtaar sëñ gaawaan ka dem ba siyaare yoneen moo ki doomam ñi ma la wax kenn kum ci mën a doon bu dul woon Seex Ahmadou Bamba doo am kilifa ci kaw suuf si ñi ma la tuddal nii te mu defar leen te kenn ñeme wuloon tàllal sa tànk ndax moom kenn kum doon ci ñoom bu génnoon kër borom Touba dootu am kilifa ci kaw suuf si waaw gaa yi ku nekk ak fi fi la sëñ bi branché rek sëñ gaawaan waaw waaw góor Cheikh Moustapha secret daa am ci affaire yoonu murit gis nga kenn ku ne ci ñii nga gis muy ñëw ka nga tudd ba tax mu ñëw daa yaakaar ni li sëñ Touba doon joxe kookaa ci boof sëñ Touba mooy l'universel déggoo ma de Cheikh Ahmadou Bamba mooy l'universel xam nga universel bu fekkee courant bi muy jox kii ak bi muy jox kii mooyam moom du l'universel sëñ Tuubaa kenn ku nekk taux bi nga soxla la lay jox mooy jox 6 volt di jox 12 volt di jox quarante kenn du tépp kookoy Cheikh Ahmadou Bamba moo tax ngay gis ñu tudd sëñ Mandumbe Mbàkke nga kook nga kooka dëkk kër sëñ Mandumbe jàpp ne li sa waay yoroon yépp moom sëñ Mandumbe la ko jox ñu tudd sëñ Gaawaan noonu ñu tudd Ceerno noonu ñu tudd Cheikh Ibra Fall noonu ñu tudd sëñ Isaa Jenn noonu ñu tudd sëñ Modou Fadiama Ñang noonu ñu tudd sëñ Darou Assane Ndiaye noonu kenn ku ne ci murit yi yaakaar na ni ki mu jébbulu li sëñ Tuubaa doon joxe moo ci boof kookoy l'universel ki mën a sédd ñooñu ñëpp ba noppi nag dese dara mooy ki dul jeexal yajudunil jawaadu mala yan fadu wa kullu maxluqin Sëñ Tuubaa nee na ku ñu bind si waaye te doo man yan fadu da jeexal man Ahmadou Bamba rek maa dul jeexal man la yàlla jox lu dul jeex waa eh Cheikh Modou Moustapha ak Sëñ Fallu ñu ñu tudde bis bii ki leen jox te jeexalul kooku kan la ah? ndax xam ngeen ni njàmbaar ci sëñ Modou Moustapha la yam njàmbaar ci sëñ Modou Moustapha la yam barke Seexul Xaddim léeg-léeg ah ma wax gaa yi ni na ñuy waxtaaneel xale yi sëñ Modou Moustapha xale yi bu ñu dégloo sëñ Modou Moustapha dinañ doon gor dinañ doon jullit dinañ doon jàmbaar Cheikh Moustapha ku ko dégg dinga nga am jom Cheikh Moustapha ku ko dégg di nga gore Cheikh Moustapha ku ko dégg di nga am détermination ñeen fukki at rek la am borom Touba dem. mu dese ñëpp ñi fekke woon am njàngam ñi ko yaroon ñëpp ñëw ni ko jox nan la sunu bopp aduna ak àllaaxira mu dirigé ko ci jàmm ak teraanga ba sol ñëpp ci menn mbedd Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim yow ma asura la feeñ ama wasasin 1306 ci gàddaayu Seyduna Muhammad wasasin la feeñ junneeg ñetti téeméer ak juróom-benn ci ay at ci gàddaayu rasulullahi ci la Cheikh Moustapha feeñ waaye yow ma asura yow ma asura ci la adduna bi tàmbali xam nga luy ci la adduna bi tàmbali ba ñu wàccee aadama wàcce xawaa sunu maam yooya ñuy wërante bis bi nu daje mooy yow ma asura ci la àdduna bi tàmbali ba gaalug noohun nga tuufaan ma tukkalee àdduna ba mu des 83 personnes ya noohun àndaloon gaal ga ma nga teer yow ma ansura adduna bi reprendre waaye àdduna tukki woon na ci noohun yow ma ansura ca ca la yàlla musal sun maam ibrahima ca xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaamun ala ibrahim sëñ tubaa ne bihi qadat naaru ibrahimu baridatan maa salaami fa haza xarqu adati yow ma asura la yoonu sa jën wa gëx ko ca biti 40 jours la def ci biiru jën wi jën wa gëx ko ca biti yow ma asura yàlla musal ko wa saahibu nuuni sëñ tubaa nee na lil mawla tajaa fanaja bil muntaqa fadanaaha kulla qummaati sallallahu alayhi wa sallam nee na ci darajey rasulullahi rek yow ma asura la Moussa xar géej gi jàll firaw na lab yow ma asura la yàlla jël jëmmi Isa aj asamaan remplacé ko ñu daaj kañ ko remplacé bil Moustapha sëñ Touba nee na bahru Moussa kaana mun falixan fan falaxa ja ca alquran kama bihi ruhu Isa li sama isama xanaa bis bi bari nay màndarga ca la Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim mi njëkk wutu borom tubaa feeñ waaw bisu feeñam rek am na lu mu wane Cheikh Moustapha bisu feeñam rek am na lu mu wane gaa ñi yàlla musaloon yépp ci bis boobu la leen musal dat bii ñun ñuy date nga xam ni mooy moom lañuy wax atum jullit ñi bis boobu lañ koy feete dañuy def ca tasuan reer itam xarit yooyu bu ñu xëyee julli yow ma asura bis boobu la Cheikh Mouhamadou Moustapha feeñ fekk sëñ tubaa réer jaam ñi di door a gis pàkkub Touba bii dem fa kenn xamul fu mu ne Cheikh Moustapha feeñe Darou Salaam ba bis bi del si ba romb sëñ Touba door a ñëw bi mu ñëwee la ko tuddaat tudde ko Mouhamadul Moustapha tudde ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ ko yar bi mu amee juróom benn weer ak fukki fan ak juróom ñaar bis bi julli am anniversaire julli juróom ñëw xanaa anniversaire boobu kenn du ko fàtte ndax jullit yi moom saa ñu xëlee xëyee julli juróomi yoon ponk lislaam juróom la waaye benn rek lañ ciy def par force cinq fois par jour muy julli ca anniversaire ba Cheikh Moustapha am 6 mois 17 jours ca la Alaaji Fallu Mbakke mii ñu ko booleel gane jamono 6 mois 17 jours la nu magante ñoom ñaar ñoo ànd seen adduna yépp bi tàmbalee sanc tudde ko Mouhamadou Fadilu wax nañ ne bi ñu ko tuddee Cheikh Ibra Fall daa faste loxo yi aj ko asamaan maam Cheikh mi nga xam ni fu kër ma sa nekkee ci guddi moo ko feeñal daa faste loxo yi aj ko asamaan daa ni hee doom liir bi dina toog bay atte Cheikh Mouhamadou Fadal liir bi dina toog bay atte waaye xam ngeen ni atte mënta weesu lii mu fi def de sëñ Fallu lu ni fungu la fi def sëñ Tuubaa leen boole ñoom ñaar dalal leen alxuraan baasin ba yaasin yow nu géej gi ñëw mu denk leen boroom darul moxti suñ daam abdourahmaane yeggale alquran ja bind nañu kaamil ñoom ñaar ñëpp balaa si Amadou Bamba ñëw hmm. nee na soxna Fatou jaa ci barab bi moom suñu Ahmadul Moxtaar moom suñu Cheikh Awa Balla yaa xafaaru zunub moom borom darul moxti soxna Fatou Dia ñoo ngi lay nuyu bala noo def dara yow la nu waroon a nuyu ñun yéen ñi sant Mbàkke yéen nu moom di ñun alali sëñ Tuubaa lanu bëgg noo dem feneen ñun bu sëñ Tuubaa seexaloon ku sant beneen sant bu ñu jàppewul jullit ci Sénégal sax ñun mën na noo doon jaamu kooka ñu génn sëñ Tuubaa rek ñun li coow li bari yépp ñun buñ génn sëñ bi rek foo mën a bokkee ci sëñ bi ñun bëgg nañ waaye bokkal ci sëñ bi rek ñun daal kin xamut luñ lay def séquñoo ak yow dara ci àdduna mooy ki nga xam ne ni yàlla def borom Tuubaa neexu la waaye foo bokkee ci yoon wi yaay sunu sëriñ d'accord waaw sëñ bi rek lañuy ñuy xeñtu ñun wutuñ keneen bëgguñ keneen bëggee wuñ ko feneen ci Seex Ahmadou Bamba rek ku ñuy bëgg jàngi ci biiram rek ku ko jéem a génn ak koo mën a doon bu ñu dajee àdduna ak alaaxira ñu nag yow xanaa ñoo ci moom suñu bopp nag nit nag sañ naa wax sama bopp day metti suñ bopp day metti kay la kenn mun la kenn sañ te wax waaye sama bopp day metti moom ñoo moom sunu bopp ci ku bëgg borom Tuubaa bëgg nañ la ñun yaa xafar zunub sëñ tubaa ko yar waaw kee maamam sëñ tubaa ko yar mook sëñ Ibra Fat Ñang suñ ma doo balla magam suñ Mouhamadul Habib ma sëñ tubaa may ñaari doomam mu doon zunu rëy ni ci moom bàyyi sëñ Moustapha may ak sëñ at su Faye ñoom la ceer na booleeg seen kaamil yee jox borom tubaa sëñ tubaa téye Cheikh Awa Balla téye Mouhamadul Habib sama xarit sama soppee dama lay yalwaan boo boo jógee foofu nga waxtaan ci àddiya milliard bi ñu jox sëriñ bi te alaji mbakki fay jox ko kum yëngalul sa yëngalul sa xol soo ko amal doo ko joxe sañaam ma ne milliard bi génn ñu jox ko sëriñ bi murit bu mu yëngalul sa xol boo ko aman doo ko joxe bawuma kenn nag sëriñ beeg seex bi ak taalibe beeg murit bi lu waaye yéene sëñ bamba defoo ko ponkal yéene ko def ko sa xol yënguwul teg taxaano boo ko aman doo ko def sëñ bamba nu moom moom baay moom maam milliard yombul junni million takk ko jox ko sëriñ Tuubaa ni ko bu bu rendi bu rendi daga nan ma rendi sama doom wala sama bopp mat naa déglu ah roy ko dox jëm ci señ bi doole liggéey sëñ Bàmba lay jariñ wërsëg liggéey sëñ Bàmba lay jariñ yàlla moo ni na ngeen ma jaamu Moustapha ni na ngeen ma roy sëñ Bàmba ni na ngeen ma liggéeyal lii ñuy takki suñuy loxo du dëgg jaamu yàlla rek kay dëgg ak liggéeyal sëñ Bàmba aada nag lekk daa xeexa ba fi mu ne kenn ñi may tudd wax dëgg nit ñi fi ne moomu nunu ñoo ñoom sëñ Bamba nu moom moomu nunu de ñoo bokk boroom koo defe boole wu ko def naa ko ci biir kenn nanu moom mooy sëñ Bamba sëñ ci laa ko wax man ragaluma ku dul yàlla bëgguma ku dul Bamba ci Seex Ibra Faal ko jaar man sama xol yëngu na maa ko wax su ko aman def ko oo ko ku ko def jaajëf réew mii bokk naa ci ñu jàpp ci dëgg laa taxaw man du ma gone de man magama jur sama ndey mag la maay caatam am naa soixante-trois ans jigéen ñu ndaw juruma te li yor di ko yëkkati am naa ko denc ko man maa ngeeg dara nanu gëm sëriñ bi nan ko wóolu nan ko liggéeyal doomi soxna day iñaan ceddo day saay saay ceddo day war ful daa say-say ku sag murit lekkul sag doomi soxna faaw nga am ki ñaan ku la gën a suurug doomi soxna moo la gën a yooy ak murit ku la gën a suurug murit moo la gën a yooy ak doomi soxna nan bëgg sëriñ bi moo fi des ponkal daa jàng ba xam werante ku jàngul ci kanam sëñ saaliwu ki jàng yëkkati mbagam defe ni da koo man sëñ bi ne ko maslaa leen boo léegi yéen ñëpp sëñ bàmbaa leen di dimbali jamono ji ku beru bon ku beru bon bawuma kenn ku la ëpp lu mu am ci sëñ Bamba la gën sëñ Bambaay baax soo bëggee baax am ko soo bëggee benn berol ku dul sëñ Bamba nekkoo fi wa salaam waaw kay waaw kay déet mais sëñ bi moom ca xasidaam googa mu tënkee radiyallahu anhu wa radu anhum ca xasidaam googa lanu lanu wax lanu wax lanu wax tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati addiye ci yoon wi la bokk sëñ tuuba moo wax moo jox ab leetar sëñ Modou Moustapha fekk sëñ Modou Moustapha wax ko ni jox jox naa ki gàddu leetar bi di ñëw ci yow jaaltu fi yadil xaamili maa fi suuratil xadri lu nekk suuratul xadri alf def naa ci loxob ki gàddu leetar bi ñëw la ca suuratul xadri jaaltu fi yadil xaamili maa fi suuratil xadri keroog la sëñ Tuubaa wëlbati këyit ga ni ko fal hadiyatu sëñ Saliou daan na ko wax day fekk lu bari mu barkeel ko mu fekk lu néew mu baril ko waaw sëñ Tuubaa wax na ba wax ni sax yi lekk ci bàmmeel Cheikh Ahmadou Bamba nee na sax yi lekk ci bàmmeel du lekk joxe katub àddiya te bari na ñuy toog di wet di imaginer seen jëmm ak i sax waaye joxe katub àddiya sëñ Tuubaa nee na sax yiy lekk ci bàmmeel du ko lekk keroog day wax sëñ Moodu Mustafaa ba mu yàgg mu ni ko wax axal lii ma la wax mooy di néew li waaye lu bari la sa borom rek ko ko xam li addiya mën keroog sëñ Tuubaa dani Cheikh Moustapha benn dërëmu addiya day wecc fukki junne ak ñaar te bu dee sarax la benn bu ne fukk la kon sarax ak addiya bokkuñu wàccuwaay sëñ tubaa nee na benn dërëmu addiya day wecc fukki junne ak ñaar douze mille lay wecc waaw un franc wu addiya bu nekk Cheikh Amadou Bamba nee na douze mille lay wecc te boo sarxe woon un franc dix franc ngay am ca yàlla kon addiya gën a woom te sëñ Tuubaa bi mu waxee yi ma la wax nii ba noppi daf ni def ni Cheikh Moustapha waxu aqal li mooy li ci gën a néew li nga dégg ci li addiya mën kon nag lii alaaj mbekk yu def bay sëriñ wax na dëgg képp koo xam ni ci ñun boo ko amoon di nga ko def sa xol neex na ndax milliard du rëy ci yow xam nga lu tax wala fii nee nanu Cheikh Moustapha wala fii ñoo léeb ne alal ci xol la sax alaaji mbàkk yu weddi na ko fii mook murit yi alaaji mbàkk yu jëfam ji daf ñoo wax ni fi alal war a toog fi olof wax ni fala alal sax sëñ Tuubaa fa jiitu alal murid yi seen xol yi fi fi ñu waroon a def alal comme alal ci xol la sax fa alal waroon toog Cheikh Ahmadou Bamba fa jiitu ci ñun moo tax nu man lii nu man ñun ak ñëpp ay wutandoo xaalis ñun ak ñëpp koy amandoo waaye duñ bokk nun koy jëfandikoo ndax ñun fi xaalis waroon a toog borom tubaa fa ne murid yi seen xol yi borom tubaa ko fees di lu ñëw ci kawam la ne waaw koo ci joxoon cent mille milliards ni ko bul bokkati ci jumaay masaalik mu delloo la ko mu di hadiya rek parce que kii kii gars yi dañ koo bëgg dañoo xam lim man yëpp xaalis gars yi xam nañ lim man de moo tax nu bëgg ko buñ koy joxe façon bii ñu koy joxe na nga xam ni kay kay tax ñu koy joxe moom la ñuy gis turu gis ki ñu koy jox di yi bu ñuy jox saaliw sàmb xam nga ni faale wuñ saaliw sàmb ñoo ma gën a jaamu yàlla ñii di gën maa baax gën maa aw aw yoon gën maa tegu ñu ci bari ñoo ma ëpp xam waaye liggéey seen alal xëy yendu ci naaj wi liggéey ko dajeeg man ci guddi gi jox ma ko ma duggaat sama néeg bu ma neexee du ma génn bëccëg bi ñoom ñu xëy wutiwaat ko ngoon ma daja dajawaat ak ñoom ci baas bu mel ni nanguwaat ko loolu xel nangu na ko ci ko jurul jàngaloo ko gënoo ko gënoo ko judd gënoo koo xam dara defoo dara ci moom loolu di wax ci sëñ Tuubaa lu baax rek war ngaa xam ni taxoo mu jox la ko borom Tuubaa nit ñi bëgg ku fi yëkkati mbagg torox de du kenn kenn du ci dara nit ñi sëñ Tuuba lañ bëgg sëñ Saliou Samb nangam nangam ngay sugg-sugg yow a kan waay waay boo waxutoon sëñ Tuuba ñii duñ la xam bay jël seen ale di la ko jox koo jàngalul métier fa mu amee xamoo ko balaa wuti métier moom mu amee xaalis jàngoon na ba xam lu mel ni li nga xam Ah nga wax ci sëñ Touba mu gàddu xaalisam jëm ci njabootam war leen koo joxe dajeeg yow ci baas bu mel nii nga wax mu jox la ko nga funki déedéet daa am ko la remplacé du yow ahmadul mbakki yu waaw ki ñu tudde waa ji joxe milliard bi moom nag bu baaxee la xër wa pourquoi pas alaaji mbakki lu tax du baax baax bu doon jëma bu tumurankee Touba lay ñibbi sëñ tubaa moo baax te moom moom lañ ko tuddee te sëñ tubaa moo nu wax ni aboo jaxlin sax genn wàllu turwaa ko alak lakinahu jarrahu nisfu ismihi xaaj turu abu jahlin moo alak abu jahlin sëñ tubaa ahmadul mbakki yu la tudd kii joxe milliard bi ahmadul mbakki yu la tudd moom lañ ko tuddee bu baaxul pour pourquoi du baax man ma déggee ñu naan sëñ xaadim daa baax ak yooyu ay ree la may def yow ñu tudd la xaadimu rasul boo baaxul loo war a def yow ah baax kenn rek ko def ba mu mat sëkk baax ku complet sëñ tubaa rek baax ku parfait cheikh ahmadou bamba rek waaw moo tax ma ne la bu doon jëmb la moom baax bu tumu tubaa lay njibbi sëñ tubaab moo baax moo baax moo mën a baaxal waaw baax nag yomb na waaye baaxal baaxal du ay caaxaan de moo baaxal Cheikh Moustapha mii ma doon wax léegi moo baaxal Alaaji Fàllu Mbàkke te ku dul ñooñu ñoo ñoo la gën a baax kon ki leen baaxal du morom déggati nga bu ñu leen toppee ñëpp la ñuy tudd sëñ Abdou Lahat ak sëñ Abdou suba lañ ayee dégg ngeen sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou suba lañ aye ma ni sëñ Abdou Lahad ak sëñ suba lañ aye bu suba nga ñëw est-ce xam nga ni sëñ Fallou Mbacké mooy wecc sëñ Abdou Lahad mooy wecc sëñ Abdou Khadre mooy wecc sëñ Mourtala mooy wecc sëñ Saliou mooy wecc Cheikh Mouhamadou Moustapha doomi sëñ Touba doomi sëñ Touba rek la sëñ Touba nee na yàlla ma defal man ak samay doom dañuy am xam-xam dañ koy jëfe dañuy dem àjjana man alayya wa ala awlaadi bil ilmi wal amali wal ihsaani sëñ Tuubaa nee na man Ahmadou Bamba ak samay doom yàlla def na dañuy am xam-xam dañuy jëfe suñu xam-xam dañuy dem àjjana dañuy texe man na mun na boo ko déggee ak ñaan la man na lu ñëw ba noppi la man na defal na ma moom yàlla man na alayya ci man Ahmadou Bamba wa ala awlaadi ak samay doom bil ilmi wal amali wal isaadi ak rim bi xaami yaali raay rijaali xisnin nisaayi wala ya baarik fil banina wal banaat bi suuratin awaluha wal aadiyaat fi mu toll doomi sëñ tubaa ju jigéen ku dul doomi sëñ tubaa ju góor moo la gën ak foo mën a baaxe laa la wax doomi sëñ tubaa ju jigéen ku dul doomi sëñ tubaa ju góor moo la gën wala ya baarik fil banina wal banaat raay rijaali xisnin nisaayi ku dul doomi Cheikh Ahmadou Bamba ju góor doomi Cheikh Ahmadou Bamba ju jigéen la gën moo tax bi nga tuddee soxna Fatiya sama xel ca ñooña la dem ndax kenn ca ñooña rek a taxoon Baye Moussa Ka ni jaan ju jigéen ak jaan ju góor dangar ya ab lugukat xàmmee wu leen ca jat ya jaan jum ca doon boo ko lugul mu ray la ku xeeb jigéeni Bamba doo am yàlla waaw ñun jigéeni Bamba ñu gënal góorug feneen fu mu mën a doon di waaw kay Cheikh Moustapha ñeent fukki at rek la am sëñ Tuubaa ñibbi àjjana Moustapha ñu ndaw ñu na nga leen toppatoo mooy diggante sëñ Abdou Lahad ba ci suuf Moustapha na ngeen taxawal néegu yàlla bi Moustapha kërug njaareem gi bu leen ko bàyyi mu sàq ba bunt fu ne am bunt fu ne fu neex waay jaar Moustapha Moustapha yépp Cheikh Moustapha réalisé ko waaye damay wax ne bu réussiroon doomi sëñ Tuubaa yi mu fexe ba seen yar bi ak yaram bi wuutewul rek Cheikh Moustapha gañe na ñëpp bu doon rakkam yi rek la réussir laa la wax fi mu toll yarub Cheikh Mouhamadou Moustapha mënoo koo xàmmeeg yarub sëñ Abdou Khadir mënoo koo xàmmeeg yarub sëñ Abdou Laat mënoo koo xàmmeeg yarub sëñ Saliou mënoo koo xàmmeeg yarub sëñ Abdou Samad mënoo koo xàmmeeg yarub sëñ Souhaïbou mënoo koo xàmmeeg yarub sëñ Mourtala te mu yooñu moo leen yar moom borom Tuubaa yar ko bi mu ko réussiree la gagné lépp waaw sëñ Ndiaye wax na dëgg bi la wax sëñ Moustapha 48 kilomètres raay yooyu privé musta taxawalub raay ci àdduna raay raay raay gouvernement rek koy tabaxal ndax dégg nga ma ab raay gouvernement rek mosoo gis privé bu taxawalub raay deux kilomètres privé bu defar ab raay deux kilomètres mësta am Cheikh Mouhamadou Moustapha lañ xam ku réaliser ab raay quarante huit kilomètres ci privé te bi koy réaliser tabax juma moo tax ñun yàgg nañoo ak jumaa ju seer nag e raay bi ni mu seeree ñun murid yi yàgg nañoo ak jumaa ju seer gaa yi nee nañ ñun dañuy bokkaale yàlla waaye kan lañ gis mu ñun kan lañu kan lañu gis ñoom mu ñun ñu defal ko li ñuy defal yàlla ñun ñun bi ñuy taxawal raay bi sunu bàyyeek sunu maam yi di dem di xëy Cheikh Modou Moustapha Fall jiite leen ñuy xëy ca raay ba bu ngoonee ñu fay leen ndax tubaab bi dañu woon bu ngoonee dañ lay fay Cheikh ma Mbacké ni ko fay leen boo leen fayee bu guddee ñu jox ma ko bu ma xëyee joxaat la ko bu ngoonee nga fay leen yi bëgguñ ko te raay bi jumaa jee tax bagage yi liggéey jumaa ji rek moo tax ñu taxawal raay bi diggante Njaaréem ak Touba mas gën gis loolu amul góor gu mel ni sëñ Modou Moustapha rek amul di boo génnee kër sëñ Touba ku toll ni Cheikh Moustapha amatul feneen 48 kilomètres raay pour lan néegu yàlla eh jumaa ju seer yàgg na fi de ñun suñ néegu yàlla day seer te gisuñ ñu defal keneenub néeg bu mel ni li ñuy def ci néegu yàlla kon ñun suñ bokkaale yàlla gi xanaa neex na ñun fu ñu nekk fu ñu dëkk ñoo fay gën a seer néegub yàlla ba pare ñu ñun dañuy bokkaale yàlla waaw nit ñu wan beneen néeg bu ñu defal keneen ku dul yàlla bu gën a seer suñ jumaa yi ñun ko néegi yàlla yi lañ gën a seeral wala yàlla jooju moom du jenn yàlla ji ah waaye murid yi dañ leen bàyyee jiñ bokkaale murid yi bokkaale wuñu seen sëriñ mooy xaritu yàlla est-ce que dégg nga ma bokkaale wuñu yàlla seen sëriñ xaritu yàlla li nit di am xarit rek la ci yàlla nangoo am te tey ma mbagg la yaram yàgg nga daan magi cernook masamba wasidi gaawaana bayi basirook baara wa abdurahmaana maymunaak fatija wasu gaawaana gorga demoon sarsara fa bandi daymaana wana fa ay xarba feñal fay kemaana naar ya naana seex ñëw na kumar na ñëw naana daa di soodaanu njëloo fa diwaana masrixe wa maxribe waxlu baydaana ñëpp ne ku mel ni moom ñëwul fi ci samaana ak bëgg Mustafa tamu feñ ci insaan kéemaan la gu fi ñëw insaan bismil xadimi baaxil karimi ñu way xadimi mujjulaaye sëñ bamba dalal nga xel yi seral nga xol yi indi nga may bilante aaye sëñ bamba yaa selluk dund amulook dend yow rek ànd waxtal anaaye sëñ bamba yaa jara taggal yàlla la màggal way ni béggal yaa dal xinaaye quraan nga dëkkal yoneen nga dikkal yaa ko fi nekkal waxtal anaaye fa ilaha illallah daf leen ñu màggal xaadimu rasulullah yàlla ñu màggal muhammadu rasulullah yi mamado di nabi mamado di xabe mamado di rasul mamado di xalil mamado in abdallah mamado xarxal xula jàppu góor sol koy leer xol muy bangeel lampo babal mëre dina seera faal siraaju dina zikurula su jibe xel dang njabe njabe faal njare njaay fergeleen faal xelañ la jaay ñoo nga dem faal teewaat boori jaal woowee ba góor ña jëm faal nga faal faal ñëpp la faal amee cant faal góor ña ren faal yaa cant faal faal ilala da ilaha jërëjëf ilala jërëjëf jërëjëf yàlla yaay moo faal jërëjëf bu baax sëñ Saliou Samb sama sang amul njariñ moom mi doon jàng sama sang la waaye amul njariñ salaamaaleykum maa ngi jégalu maa ngi bu baax yoon wi daa am cafka yoon wi dafa am cafka kan mooy xorom si yoon wi kan mooy xorom si Seera Faal mooy xorom si dama bëgg ngeen fekk fii Serigne Saliou jox ko addiya maam Seera Faal mu waxtaan ci sa Ibra amuñu kenn ku dul Seex Ibra maa la jox junni bii ci Seex bëgg naa ngeen ñëw jox ko addiya maam Seex Ibrahima Fall addiya Seex mu maa ngi dagaan nga jërëjëf maa lay dagaan nga ñëw jox ko addiya Seex jërëjëf jox ko mu yeggale acca na ñëpp ñëw jox addiya Seex Ibra man sax dama far Baay Faal ndax maxtuma mi ma ngóor si solal waaw kay Moustapha bu waxtu bi jotee wax ma gaañaa ngi fi kat sëñ Basirou Fall jërëjëf waaw waaw moom sëñ Cheikh Rokhaya waaw kay waaw dëgg la ci Cheikh Moustapha laa nekkoon xanaa ma wax ci alaaj Fallu Mbàkke ñaari baat yëf yi xat na Cheikh Moustapha mooy lépp sëñ Basir Mbàkke ko santu topp ca gannaawam Cheikh Mamadou Basir way juru sëñ Muntaxa mi moo ko sant muy way mu jàng ci ñeenti xibla yëpp way ziyar fam Ibrahima alxawaayida wa min bayti way Ismail sëñ Basiru ci xiblay jumaa ji moo njëkk a wàcce ci kàmb gi moom moo Mouhamadou Moustapha moo tàmbali tabax bi mooy awalu man banaa fil binaay Cheikh Moustapha moo wàcce ci kàmb gi Moustapha kan sëñ Modou Moustapha wàcc ci kàmb gi jàmb simaa bi téye turel bi am ku ko tiim alaaji Bamba Samb la tudd fecc kaalaam jox ko xeer yu sew Cheikh Moustapha teg ci kaw turel bi ni ko liilum doon mu ni ko damaa demoon Màkka yii xeer maa ko fore ca xabru sayyiduna Muhammad ya ca des maa ngi ko fore ca Kaaba ga mu ni gees sëñ ma sàmbay sa jeey ni ko wax na dëgg sa bàyyi ni wooñ waj al bihi daariya kal madina barakatan wa kaabatal masuuna Cheikh Moustapha tabax mag ñi nu ne lañ ñëwee ci moom dégg nga léegi li sëñ xaadim doon wax li ko Baye Moussa ko wax sëñ bay Jaxate ba muy ñëw fukki way ak ñaar la ëndaale sama jëmm a ngi sama ñëpp a ngi sama lëpp a ngi ma ni cas tegal la fi sab loxo nangul te jël yàllaa la jox ku mu jox nga am day dëgg tey jii mbàkke yaa fi gën man nangu naa nangoo ma war moo gën ci man ngir Babacar moo njëkk a nangul Moustapha ma ca Medina su ma daa bañit tey nangu naa ñëw naa fi yow mu daaneel mu may ko soxna Aminatu Mbàkke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 alaaj Cheikh Modou Fadal bàyyi soxna may ak mbeen alxuraan a gën loo mës a gis ibnu abbas sax nee na melaw yàlla la moom alxuraan sëñ fallu rek a ci am juróom ba juróom benn moom alaaj Cheikh Modou Fadal téere bi yàlla bi soo nee sëñ fallu kañ nga gane jamono mu ni demal jàng téere bi yàlla bi fu sa gane jamono siiwee mu ne jàngal téere bi yàlla bi ban bis la mu ne jàngal téere bi yàlla bi noo tudd mun i jàngal téere bi yàlla bi looy liggéey mu ni jàngal téere bi yàlla bi foo dëkk mu ni jàngal téere bi yàlla bi moom alaaj Cheikh Modou Fadal kañ nga gën a jamono mu ni jàngal Israayil mbaa nga jàng nañ mi yàllaay nettali wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kazaba al fuadu ma ra'a fatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha bismillahir rahmanir rahim fa subhana allazi asra bi 'abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir qad haza faqra min hina asra bil jismi jahra bil iftirai min hal amriya isra wal ilahu bihi bi ruhi wal jismi laylan li samawati salli ala sarin sama fawqa al buraqi li sama muhammadin wa karima bis bihi wa sallimi huwa alkalimu allazi asra al ilahu bihi ila samawati laylan jaliyan zulama fu sa gën a jamono siiwe mu ni jàngal alquran wallahu yadu ila daari salaam ban bis la mu ni jàngal alquran yaa ayyuha alladina amanu iza nudiya li salati min yawmi aljumati fasahu ila zikrillahi wa zarul bay'a zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun noo tudd wa annal fadla bi yadillahi yuti man yasaw looy liggéey wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina waykat bi nee na ci ama wasasin la fa Touba am nañu naa Daaru Salaam la booba ca mama la mbar mi génne daaru sañcis Touba Mbàkke ñëpp a waaru ajjuma tey kësu rajab la takk jundul ilaahi dar ko mbër may bàkku bisu keroog daam dani bu ko kenn nampal fii jant bi so buñ ko jox tokkantal bisu keroog wax na ni rasulullahi ñëw na fi ngir ju doom bi doonallaahi inniya abdullahi moom la isaa waxoon dimim njureel garaw na buusa buur ba defoon ba isaa mën a wax ci biir mur moo def keroog sëriñ fallu mën a woor amul lor bi ka taway naa maalahu nastaaxu salla alayka akramul xallaaxu ba bis ba dellu see sëñ tubaa tuddi ko Mouhamadou Fadilu Cheikh Rafal ni liir bi dina toog bay atte leeru ngëneel ga woon ca soxna jaara fekk na ca liir ba musula dem ci daara foofee la jànge alxuraan ba mokkal ci diir bu néew a néew la daal àggal tàmbalee baqara jëm si saaru naa yi yóbbaale ab tareem amul waswaasi alaaji Cheikh Modou Fadal ana Moustapha Kane sëñ Ablaye Seck maa ngi lay nuyu allah sama jëwriñ ju baax jooju mook sëñ Makumba Ñang sëñ Makhtar Fall maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu sëñ Abdul Ahad Diouf mbooleem ku toog foofu maa ngi lay nuyu Serigne Bolle mbay maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu particulièrement sëriñ Am Diop suma xarit bee waaw c'est un ami de moi waaw yàllaay dogal di kee suma xarit la waaw te kenn ëpp ko cër lii may def moo ma ko dàq ba pare bëgg ma lu tax du ma ko delloo maa la dàq bëgg sëñ ñàkk saa sàmm yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral la loo bëgg yàlla na nga ko amee noo kawee sa njort mboolem jàngkati xasaayid yi nag na ngeen xam ni loolu ma ñaanal sa ñàkk saa sëñ tubaa ñaanal na leen ko ba pare sëñ tubaa nee na yàlla ku jàng araf yi lu baax na ci am lu kawe njortu mun na ala xaari i dil huruf bi maa na zanna min maaruf affaire baa ngi noonu de ki toogoon fi nag daa wax Seex Rafaal Moustapha jege ma dama lay jox rajo bi waaye maam Cheikh Rafal bis bu ñu la ko waxee ba nga wàcc podium bi te waxoo ko da ngay far ñàkk xorom te yàlla na nu yàlla musal ci ñàkk xorom Cheikh Rafal saa ñu la ko ñaanee ngay dëgër bopp ba defoo ko laa la wax boo wàccee podium bi fa ngay jaar ñàkk xorom yow dootoo am xorom ci yoonu murit waaw dëgg la maam Cheikh daa ma sa wax baat boo xam ne bis bu nekk gaa yi waxtaane ko waaye bàyyiwuñ ci xel mooy ku am na ma gërëm ku ñàkk na ma xarab loolu ku dul kuy séddale sañoo koo wax. wax nga dëgg nga ma. baat bi gars yi chaque jour ñu waxtaanee ko waaye tasuñ baat bi tasaare wuñ ko ku am na ma gërëm ku ñàkk na ma xarab ku dul kii séddale sañu ko wax wax ni maa xamle woon naka la ba ñëpp xam naka la daal ciy teg ne ah doom su ma doxoon ba dajee kub dawkat mu ni ci la bokk dinaa ko xamal naka la dinaa la wax ci xamle naka la fu mu daje woon ak ku man alquran ni ah, a man alquran na mënunoo baax te du lañuy joxe liñ gën a bëgg maam seera ni ko ana noo koy dundee mu yar ab gàtt ba ma tudd ma tabaski ma jox ci yoonu yàlla dinaa yaru nag ba muy yëkk ma jox ci yoonu yàlla giléem sax dinaa ko yar ba mu tukkal ma jox ci yoonu yàlla maam Cheikh di ko xool ba mu yàgg mu ko mën a koo dëgg sa nopp bi ci yoonu yàlla mu ne ko ah eggaguma foofu de mu ne ko sa tànk bi nag mu ko déedéet Fall mu ne kon sa bopp nga gën a bëgg demal jox ko sëñ Bamba boo bëggee baax lantanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuuna li lay tekki wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngeen baal ma xaq ci li ci dëng jërëjëf li ci dëng maa ngi leen ciy baal wax man soor na nga def gëy jërë jëf jërëjëf sëriñ Saliou Samb jërë ngeen jëf waxtaan wi am na solo. waaw waaw wala fi nee nañ lu dul doy lu ci waaye am mu doy. dëgg la. te lii ba àjjana lañ koy def. dëgg la waaw nañ ci ne rek. Mhm. ba àjjana. nekk leen ci rek waaw kon kon kon xel dul dakk léeg-léeg dukk dukk na ci nañ bàyyi gaa yi ñëw. nekk leen ci rek ba beneen. jàngeen jëf waaw sëñ Moutakha nee na. day gën a day gën a neex. day gën a gën. waaw ba àjjana rek.